insha allahu niñ ko defoon daaw rek dañ saxa ba ba tàmbali siira bi di waxtaan ci ak dundam dañu wut itam ay kilifa yoo xam ne dañ mën a waxtaan ñu ñu ñëw ñuy def léeg-léeg ñu am ci benn bi ci jataay bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag daaw xam ngeen ne waxtaanoon nañ tàmbali woon nañ siira bi waaye aggut ren it dañ ko tàmbaliwaat ci beneen anam mooy xëy na lañ waxoon daaw lu ci bari dañ ko jël waxaat ko ci geneen anam goo xam ni day mottali la woon daaw ngir nag gàttal rek ndax lu ci bari ginnaaw waxoon dañ ko daaw dañuy leeral ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom yàlla da ko tànnal léppam noonu la ko Sëriñ Tuubaa waxe Sëriñ Tuubaa da wax ne ahmadu man alal wara stafaahu bi xuluqin bihi tala siwaahu maanaam yàlla ci boppam moo ko moo ko moo ko tànn tànnal ko léppam tànnal ko ay ak njaboot ak ñim bokk ba tax na famille bi mu jógee ak askan wi mu bokk yàlla da ko mas di tànn ay maamam kenn mos ci nekk ab njaalukat wala naankatu sàngara wala ak moykatu yàlla ñëpp dañoo mas di baax yonte bi daana ko leeral wax ne man inna allaha astafa min waladi ibrahima ismail yàlla ci njabootu ibrahima da ca tànn ki ñuy wax ismail muy doomam wastafa min waladi ismaila kinaanata ismail ak njabootam yàlla tànn ci giir gi ñuy wax kinaana kinaanata itam mu ne wastafa min bani kinaanata quraysan kinaanata itam yàlla tànnaat ci qurays wastafa min quraysin bani hashim quraysit mu tànnaat ci banu hashim wastafa nii min bani hashim man mu tànne ma ci biir banu hashim xam nga yàlla moo wax ne moo wax ne nit ñëpp buñ daje daje tànn ay famille ne allah astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima maanaam Adama moo ci jiitu ak njabootam xam ngeen am nañu ci jàdd beneen yoon ñu wax di diggante xaabil ak haabil dégg ngeen ko xëy na ba tey waaye yàlla da cee mas di tànn ay ñoo xam ne ñooy doon ay yonent di yore leerug sayidna Adama gi nga xam ne lépp mi ngi balloo ci leerug yonent bi xëy na loolu danañ ci ñëw benn bis ba ci sayidna Noox yàlla tànn ko tànn ci biiru njabootam ba ci sayidna Ismaila i Ibrahima loolu la yàlla wax ci alxuraan noonu ndax astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ba ci sayidna ma alu imran mooy yonente yooyu nga xam ne ñëpp ci banu israel lañ bokk ci sayidna isa jóge ci noonu la yàlla di di sàmme njaboot gi bam agsi ci yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax yonente bi wax ne man inna allaha xalaqa al xalqa fa jaalani min xayri firaqihim wa xayri alfariqayni yàlla dafa bind mbindeef yépp boole ma ci ñi gën ci ñaari kuréel yi su ma taxayyara alqabayla fa jaalani min xayri alqabilati su ma taxayyara albuyuuta fa jaalani min xayri buyuutihim fa ana xayruhum nafsan wa xayruhum baytan loolu yonte bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam imam Tirmisi moo ko nettali xadis bu njëkk moom ñëpp xam ne ne imam muslim nettali na ko ak ñeneen yu bare bari ma yonte bi daa wax ne yàlla daa tànn jaam ñëpp mboo mboole nit ñëpp dana def ñaari xaaj ñu baax ñi ak ñu bon ñi ci biir ñu baax ñi nag nee na mu defaat leen ay ay ay ay kuréel ak ay giir ma day gis wala fii séeréer si pël yi naar yi noonu mu def ay ay giir ci biir gooyu giir yooyu nag donte nag giir yooyu yëpp ñoo bokk ci sànn ci misaal waaye dëkkin wi ak climat yi fa ñuy dëkk moo leen di wutale nee na ci biir giir yooyu mu tànnal ma ci giir ga ci gën ci biir giir giir googu itam mu mu defaat ko ay kër xam nga mooy njabootu naa ko misaal ci bu doon darul moti ma nga ne kër sëñ mu daw balla kër sëñ Abdou Khoudoss maanaam genn genn giir wala genn kër day defaat ay xaaj nee na biir kër yooyu nag mu tànnalaat ma ci kër ga ci gën noonu la ko yàlla tànnee moo tax mu daa wax ne man da yàlla def may ngën ji mbindeef ci wàll yëpp loolu nag buñ ko toppoon ngir leeral ko dana gudd waaye man ma wax rek ci lu gàttal ni xam ngeen ne ngir leeral askan yonente bi xam ngeen ne yonente bi aw askanam buñ koy wax ñetti xaaj lañ koy def am na ci xaaj boo xam ne yonte bi ci moom daana ko lim moom nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ne lépp wér na mooy digganteem ba ca fi ñu fi ñu wax Adnaan am na ci xaaj boo xam nag moom am na sikki sàkk ndax wér na wala wér mooy digganteem ba ca diggante Adnaan ba ca Ibrahima am na xaaj boo xam ne moom kenn sikkut ne am na njuumte moom waaye mu waaye xamee sut fu njuumte ne teewul nag dees na ko wax muy tàmbalee ca Ibrahima ba ca Adama Adnaan moom yi nag nga xam ne moom mooy mooy liñ dëppoo nga xam ne yonte moom daana ko lim yonte xam nga bu ko masaa di lim day day wax ne man Muhammad la ibnu Abdillahi la Abdullah mooy bàyyam Abdul Muttalib jur Abdullah moomu Abdul Muttalib Shaybatu lañ ko daa wax ibnu Haasim Haashim mooy bàyyi bu Abdul Muttalib Haashim nag moom turam moo doon amru xëy na bu bu jotaay bi ñëwee dinaa ñëw ci seen tur yooyu lu ko waral Haashim moomu Abdou Manaaf moo ko jur Abdou Manaaf mi ngi tuddoon Mughira Abdou Manaaf ku ñuy wax Qusay moo ko jur Qusay Zayd la tuddoon Zayd moomu wala Qusay moomu Kilaab ibnu murra mooy mooy mooy bàyyam ku ñu wax kilaab kilaab moom ku ñu wax murrata mooy bàyyam murrata ku ñu wax kaabu mooy bàyyam kaabu moom ku ñu wax lu ay mooy bàyyam lu ay ku ñu wax xaalib mooy bàyyam ku ñu wax fihr di bàyyi kooku fihr moomu nag moom la ñuy dàkkantal ci quraysh moom la ñuy wax quraysh di ko dàkkantale giir gi fihr moomu muy quraysh moom malik mooy bàyyam nadr ku ñu wax nadr di bàyyam nadr moomu mi ngi tudd qays kinaanata di bàyyi xaysu moomu wala nadr moomu xusaymata di bàyyam mudrika di bàyyi kooku mudrika moom la ñuy wax amir ilias di bàyyi amir moomu wala mudrika mudar di bàyyam nizar di bàyyam maad jur ko adnaan di bàyyi maad loolu mooy li nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ci ne wér na ci askan woowu la ko féete kaw nag am nañ sikk sàkk bu ko dee adnaan moomu ci gàttal rek moo jur maad maad nag moon mën naa ne mboolem arab yi ñuy wax al arabul adnaan yooyu yëpp ci la ci la ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ askan xam ngeen arab yi ñetti xaaj lañ koy lañ koy xaaj loolu sax boo ko toppee di gën a gudd mooy am na ñuy wax arabu al baida mooy ñi nga xam ne kenn xamul seen taarix mooy nit aadiyaat samudi ak yooyu ñooy arab yooyu am na arab yu ñuy wax arabul aariba mooy ñi cosaanoo ci ki ñuy wax sulbu ci ci ci yaarub ibnu yasjub ibnu qaxtaan te dañu leen tudde al arabul qaxtaniya am na beneen xeeti arab yi ñuy wax al arabul mustaariba mooy ñi cosaanoo ci sayidna ismail nga xam ne moom seen cosaan dëgg-dëgg du arab ismail xam nga du arab bàyyam moom mooy sayidna ibrahim iraq lañ dëkkoon ci yeneen xeet lañ bokkoon seen cosaan du arab waaye moom sayidna ismail sayidna ibrahim da ko indi màkka ni ngeen ko xamee xëy nañ ko wax nañ ko ba tey mu am fa seneen mu am mu am fa soxna si arab moom sayidna ismail ca la nag adnaan mii bàyyi ko maanaam ñi ñooñu lañ tuddee arabul mustaariba nga xam ne ci seen cosaan dëgg-dëgg duñu arab fi ne maanaam yonte bi ci ñooñu la bokk nga xam ne cosaanam dëgg-dëgg du arab maanaam ismail mooy mooy maamam te ismail du woon arab adnaan nag surtout isma ismail moom la adnaan moo jur mahad mahad mën nañ ne mooy ñaar fukkeeli maam ak benn ci maami yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi tam bu masaa tudd ay maamam ba agsi foofu day wax ne kat li ci des moom maanaam wérut mën a succee sukkandiku moo tax foofu da daa yem wax ne diggante adnaan adnaan ak seydina ibrahima ñeen fukki nit ñoo fi dox ma ma ad nag dafa amoon doom ju ñuy wax nisaar wax nañ ni moom rek la amoon ci doom nisaar moomu amoon ñeenti doom nga xam ne ci la giiri arab yi ñu xam yépp bàyyi ko mu ñuy wax iyaat ak anmar ak rabia ak mudar iyaat ak anmar ñaari giir yooyu kenn xamatu leen waaye ñaari giir yu mujj yi rabia ak mudar ba léegi ñu ngi leen di xam ñaari giir yu mujj yooyu muy rabia ak mudar mbooleem itam kër kër yi judduwaat ci biir arab yi xeeti giir yi itam ci ñooñu la jóge rabia ci la asad ibnu rabia jóge banu asad ibnu rabia ak anza ak abdul qays ñi nga xam ne ñooy doomi waayil waaw wala wala boog ñaa ibna waayil ñu wax bakru ak taxlib bakru ak taxlib ñoo ñit ay ay nit la ñoo xam ne leen askan ak giir ak xanifa yooyu ñooñu ci ci rabia lañ jóge mudar itam dafa dafa defaat ñaari xaaj qaysu aylaan ibnu mudar ak butuunu Ilias ibnu mudar ba tey mudar moom it wax naa ne ñaari xaaj yooyu mu def xam nga ne moom ci la ba tey ci la yonte bi bàyyi ko qaysu aylaan ci la banu salim banu sulaym jóge ak banu hawasin ak banu qatafan te qatafan ci la abas jóge ak zubyaan ak asja ak gani ibnu asur ba tey Iliyaasu doomi mudar moomu ci la Tamim ibnu Murrata jóge ak Hudayl ibnu Mudrika ak banu Asad ibnu Xusayma ak banu Kinaanata ak ak butoonu Kinaanata ibnu Xusayma Kinaanata ci la Quraysh jóge Quraysh nag ñoom ñooy awlaadu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinaanata ñooñu ma tuddoon léegi Quraysh dafa defaat ay xaaj moom it xaaj yi ci ëpp solo mooy yi mu wax jamx ak saham ak uday ak maxzum ak taym ak zuhrata ak giir yi nekk ci banu qusay ibnu kilab te mooy abdul daar ibnu qusay asad ibnu abdul uzza ak ibnu qusay ibnu qusay ak abdul manaaf ibnu qusay ñett yooyu abdul manaaf it ci la ñeenti giir ñeenti ñeenti giir bokkaat mooy abdul sams ak nawfal ak abdul muttalib ak hashim baytu hashim nag ci la yonente bi génne li ma ko wax mel na xaw naan dëj waaye dama bëgg bëgg indi càllale gi rek laa du indi bu wane fii yonente bi génnee ci noonu